acca mbokk internet ñoo ngi baax a baax di leen ziar di am mbégte contenté comme ni ñu koy defee à chaque ñoo ngi fii si esplanade bu Grand Théâtre de Dakar xam ne nii moom mooy Baye wax ñu leen waxtaanee lépp li nga xam ne nii moom moo nar a xew le 31 décembre fii si esplanade esplanade du euh, du Grand Théâtre de euh, mu nekk bal des Faramareen alors Baye ñoo ngi nuyu ñoo ngi lay fay di nuyu waa adduna di nuyu journaliste yi ñëpp di nuyu waa. Sénégal bu baax a baax alhamdulilah. alors Sénégal yëpp lu ñu nar a xaar lu ñuy posé question mooy lan la nar a xaar le 31 décembre. waaye comme d'habitude ah mais que xam naa ne dina am lu particulier ci événement bi parce que ku gis euh, tournée yi Wally def ci décembre bi di nga xam ne ni que événement Balde Faramareen moom dina am lu particulier ku gis installation bi mosuñu toll fii heure bi mais que nit ñi ñooy fanaan di liggéey pour que affaire yi gën a. Euh, gën a gën a yemb ku gis dispositif bi ñu teg nii nga xam ne ni que lii du yomb incha allah. voilà alors euh, nekkoon ci place mm. mm. waaw waaw parce que xam nga yi moom bëriwul ci espace yi nit ñi di euh, yi waal di xaj. Mm. Dakar du bëri noonu su nekkul Grand Théâtre day nekk Cissesse su nekkul si Cissesse day nekk place du souvenir euh, daaw. Euh, Cissesse sañ ko bëggoon def foire bi nekkoon fa grand théâtre disponible lul woon après place du souvenir moo fa ñu jël ko def ko fa. te que biñ ko fa defee tamit gis nga lu fa xew mais ko comme que espace bi ngandeel woon mënu woon ñu def yenn aménagement yi ñu bëggoon def moo tax nag ren ñu jël ko vraiment teel ko jël jéem a xool li ñu bëggoon def yëpp ci spectacle ñu mën ko def ci esplanade bi incha allah le 31. ñu waaw Dakar Arena mu kenn exclure ko mais que vu ni que tournée yi dafa bëri woon mun woon ñu ko def ci moment bi mais que anniversaire bi le set mën na fa nekk incha allah mën na fa nekk incha allah. alors ñu bëri wax nga ko léegi si biir tournée yi waaye gis nañ depuis le vingt 21 ba léegi mu génn Sénégal di wër maanaam mun nañ wax ba sous région bi physiquement est-ce que Wally pare na pour jox lu fans yi bëgg le 31 décembre. waaw bien sûr parce que tey jii nii soo xoolee. Euh, spectacle moom ci 31 décembre chaque jour dafay am ay surprise yu bëri te que ku xool dispositif bii nii nga xam ne ni que spectacle lañ bëgg a def parce que mën nga ñëw woy wàcc dem mais spectacle la dina am danse son et xam nga surprise yu bëree bëri incha allah dina am ci événement bi xam nga kon nag ñoo ngi woo gars yi ñu teel a ñëw xam nga parce que rang bi chaque jour da doon compliqué mais parce que nit ñi dañ doon bàyyi ba ñeen minute ñu ñëwandoo kon nañ teel a jug ñu teel a ñëw euh, restaurant yi ñoo ngi ci biir. site bi xam nga euh, toilette yi ñu ngi fii yëpp ñu ngi fii da mel ni ku nekk sa kër. xam nga concert la mais baal la waaw. a yëg. bien sûr tey suñu amee lu ñu gënal Wally min mi da koy fekk ci kaw scène bi xam nga min mi da koy fekk mais que chaque jour dañuy am problème pour nit ñi teel a génn teel a ñëw ñu min wi mën a fekk gars ci kaw scène parce que mënuñu fee toog ba ay cinq heures 6 heures du matin waaw mais ñu teel ñëw xam def baal bi dem noppalu ji suba si ñu xëy dem baaliwaat incha allah. parlons de le spectacle bi nga xamee ni moom ngeen nar a livré demee incha allah faramaareen yëpp kenn muutu wax fu mu toll ne spectacle Ramadan te génne si kii di njàpp njàpp nag ñoom bi def biir bu bëri bëri ñu si bëri jàpp ne peut-être Zal Baye Zal Omaro ñoom ñoo njëkk xëcc kii di njàpp pour mu ñëw rejoindre lii di Ramadan. man je préfère bañ a wax ci détail parce que man du ma nit détail man li ma gëm mooy liggéey laa gëm xam nga avancé ci samay projet te vu que man maa ngi fi toog dew ma bi dew ma tournée dew ma fen événement bi moo ma import moo ma importare woon moo tax ma toogoon ci événement bi ñu toogloo ma fi nag ma toog pour def sama liggéey détails yi bugguma ci di avancer tantôt ni que nii ñëpp ay artiste lañ te que libre nañ tamit euh, pour euh, nekk ci liñ bëgg a nekk libre nañ tamit pour def liñ bëgg a def ama muy njàpp muy ku mu mënta doon je pense que ni nii ku yëg ci kaw scène bi liggéey moo la fay yéegal pour que nga wane sa bopp euh, nga def sa spectacle comme ni mu ko waree voilà moo tax domaine yooyu man duma ci bëgg di avancer parce que détail la pour man. ñëw bu la encore une fois man gisewu ma dara dara. tantôt ni que man ci sama gëm-gëm mooy que man suma ma moom sax duma ci siis. li ma moom dama koy tijjel ñëpp. waxatuma nag lu ma moomul loo xam ne dañ ma cay boole. kon ku ñëw ci nga bokk. Mhm. ku borom kër gi may accès nga am mën a accéder. yàlla li nga fi wut yàlla na la ko yàlla may ci barke Cheikh Tidiane. Mm-hmm. Uh, uh, waaw. Uh, def mu koy terminer le 31 décembre fii ci esplanade bi mu nekk date boo xam ni Bal des Faramaré ñëpp xamee mais dañoo gis ni cette année ci nga xam ni moo di Sidy dafa def même date le 31 ak fii la tout vraiment place de l'Obélisque boo man xam man dama damay waxaat encore une fois li tax samay génn du bëri mhm. mooy que lu mu sama yoon nekkul bugguma ci dugg man li sama yoon nekk mooy le 31 décembre mhm. maa ngi fi di liggéey te incha allah dinañ la livrer mhm. spectacle bu normal spectacle bi incha dina am son dina am lumière dina am danse dina am non euh, mm. euh, mm, non xam nga li nga wax dégg naa ko mm-hmm. dama la tontuwul parce que dama sama yoon dafa nekkul ci loolu man li sama yoon nekk mooy le 31 décembre laay def alors le 31 décembre incha allah ñoo ngi woo képp ku bëgg waali nga ñëw baal si comme d'habitude après on avance waaw su ma waxee dëgg te yàlla moo tax xaw ma nu Wally di ñëwee sax. parce que du sama domaine. Euh, ku nekk ak domaine bi nga def man liñ ma doon sant ragal naa ni maa ngi koy waaj a matale. Mhm. te euh, di si suba ñu livrer sit bi. Mhm. après ñu ñeneen jël seen domaine. maanaam domaine nu Wally di duggee ni muy génnee ni muy woyee du sama domaine. waaw man li nekk sama domaine foofu laa yem.

oto dootul jàll foofu xanaa oto yi dugg si biir euh, Grand Théâtre képp kuy dem Grand Théâtre yaay jaar ci voie boobu dinañ am parking ci biir Grand Théâtre dinañ am parking ci ginnaaw ci wetu terre bi dinañ am parking ci rond point bi nii rond point Grand Théâtre bi xam nga loolu moom du nekk problème incha allah. Euh, euh, parce que ñu bëri dañu wax ni Baye Zall mooy ménageur Wally ñi ñëw ne du Baye Zal Euro mooy manager Wally mooy sunu mag mooy manager Wally Seck man manager la de métier mais que ci sama fonction fii agent la habilité naa pour defal lépp Wally Seck voilà mais que Ndiaga mooy sunu mag mooy manager Wally mhm. voilà mais man je travaille directement avec Wally gis nañ euh, gannaaw ba Omaro ñëwee Baza ñëw ba léegi Faramareen bëri na ay problème loolu loolu ñu jàpp ni ñëw bees tax ay jalousie commencé am gis nañ sax Amady Badiane génn def benn sortie bi nga xam ne ba yëkkati kàmm di waat ne si ñaar seen diggante amul dara alors problème yooyu yëpp nan ko gisee ak bi nga xam ne Amady Badiane gis na ko parce que jàpp ni ba bañ ko commencé sonal si ay audio yooyu kenn gisul benn kenn xam ne bokk na salaam daan génn si loolu. ok encore une fois man li ma mën a wax mooy que ci dispositif pour 31 décembre parce que xam naa ne nit. Euh, yéen ñi fi taxaw nii ñëpp ku ci nekk mën naa mu wooma pour ma def interview ak moom mais que man dama bindoowu ma wax li ma bindoo mooy liggéey te que liggéey laa mës def te moom laa xam alors les détails du ci avancé parce que sama yoon nekkul ci détail voilà man li nekk sama yoon mooy que naa liggéey def ay résultats yoo xam ne dinaa satisfaire sama bopp neex ñëpp nag wax dëgg yàlla su ko nit amee xaw ma lu mu koy doyee voilà neex yi ñëpp yàlla sax amu ko suñu borom kon euh, ci parce que sax sax la voilà loolu liberté nit kuy xalaat la mhm. man joxewuma éclaircissement ci benn nit mhm. amul éclaircissement bu may joxe ci nit mhm. parce que Sénégal moom soo leeralee ñu la waroon nga leeralee ne nga lëndëmal ñu ne la da nga lëndëm alors kuy jàpp nanga nga jàpp loo bëgg jàpp libre nañ ci mais yàlla suñu boroom xam na te yàlla suñu borom laa kon euh, ku kontaan ak ku mer wax dëgg yàlla fregew ma lijjantiwuma sax lijjantiwuma sax loolu. mais euh, Baye est-ce que tu te waaw mais sentir à l'aise man fu ma sentirul à l'aise damay quitter. sentir à l'aise moo tax ma nekk fii. encore une fois man Wally moo ma indi fii. te que Wally laay liggéeyal. Mhm. te su tant que maa ngi koy satisfaire. dinañ continuer di liggéey incha allah su fekkee ne nii man xam naa ne amatuma ay capacité yu ma ko mën a apporter man maay am grandeur quitté tant que maa ngi am capacité yoo xam ne mën naa ko apporter quelque chose incha allah dañuy continuer di liggéey parce que ji na ma ko quoi. alors ñu bëri nga sax mu bi sax moom koy gérer waaw xam nga sëriñ bi ñun ay góor lañ man duma ma détail Youssou sama mag la. mu nekk nit ku baax jox ma cër ma delloo ko cër bi te que loolu mooy mës a nekk benn Youssou li muy def sax habilité wu pour def ko Youssou directeur artistique wu Framarine la directeur artistique wu Wali la kon directeur artistique ça n'a rien à voir ak man li may def comprendre nga kon ay problème tantôt ni que fu problème amul yéen mën ngeen ko fa def parce que vu que ñoo ngi wax ni actuellement ci événement mais que xam naa li ngeen di titré sax du nekk lii alors ay réponse ngeen koy def ak yooyu noonu te kan laay répondre Youssou Dieng mu génn moom mooy moom mooy gérer maanaam événement chaque fois te dañuy am yow yaa koy gérer mais moom mooy dëgg la moo koy gérer. ok non non gérer ok <laughs> Baye ah, ah. euh, ah, France ngir faj ngeen def non man maa ngi Sénégal man maa ngi Sénégal. mais maa ngi dégg. maa ngi koy dégg mais moo ngi man maa ngi Sénégal moom moo France. wóoru ma. alors su fekkee ni événement non non cuwee dama leen wax su fekkee ni ni que lu ñuy posé ci événement bi jeex na ñu baalante àq ñaanalante ci jàmm ku nekk dem non man sëriñ bi dama la wax ne la waaw waaye yow góor nga man góor la du ma wax détail te loolu ma la wax noonu dama la am lu mu la junj man ma wax détail man maa ñaan yàlla nekk di liggéey ci business bi business bi ku ciy liggéey dafa am loo xam ne dañuy soo ko làmboowul doo ci dem mooy muñ yàlla lu mu amul man mënu ma ko am Moussa li mu ñaan yàlla da ko ñaan ne ko dama ragal wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw pour nga musal ma ci loolu nit ñi bañ ma ko def yàlla ne ko mënu ma la may lu mu amul ndax yàlla suñu borom sax moom dañ koy waxal lu ñaaw yee ñun ñoo nekk au devant de la scène mm-hmm. prouvé waat nañ ñu ne nii que ñoo ngi avancé voilà te temps bi ñu def ci lii vacciné nañ depuis vingt deux ans am na loo xam ne comprendre nañ ko ci showbiz nit mënatuñu ko jàngal ci showbiz alors comprendre lépp wax lépp nag su yàggee nga nekk waxkat. non sëñ bi dama la waxaar encore une fois man dama wa li ma la wax ni dama la tënkal benn affaire alors li ma la tënkal noon si te plaît parce que man muy micro ak muy kii voilà nañu génn ci ay wax yu sew quoi. waaw bii li ci des bëreetul parce que événement bi suba la. événement bi suba la li ci des bëreetul na gars yi gaaw daw jënd seen billet via Wave ñii dem jënd seen billet euh, ci euh, Chez El Pacho Aba Cheikh Lay Jumon Afia Kër Thion ku lim juum mais que billet yi daal xam naa ne moo ngi ci dernier virage bi. yeah spectacle. incha allah incha allah waaw na ma dimbali nag tiitale li ma wax. te dimbali ma ci seen miniature yi te ci seen miniature yàlla yàlla